DG Moustapha Guèye di doomi njaareem directeur Kourous bu Thiès Moustapha bis bi tax laa jóg looy wax. waaw bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman maanaam weer bu ñu ne weeru sant la mm. bés bii ñu ne nekk bésu sant nekk commencement ay xéewal yoo xam ne daf day baawante dal suñu kaw kon lépp sant la donc ñu ngiy sant di sant Cheikhul Khadim mm-hmm. di sant euh, Serigne Touba Serigne Mountakha di sant képp ku sant Mbacké waaye di féliciter également population de Diourbel di féliciter kulli murid mais di féliciter également gannaaw bañ ko encourager monsieur le maire Malick Fall ndax lii nag yombul am maire boo xamante ne day dox si tànk Serigne Touba loolu maanaam du jafe la kon ñu ngi sant ñëpp kaddu yi kaddu sant la comme ni ma ko waxee aw ma ndigal nag su ma amoon ndigal dinaa wax lu rëy rëy waaye nañ jàpp ne rek maanaam lépp daal. ab sant la. Mhm. kon alhamdulilah rabil jërëjëf jërëjëf monsieur le directeur kaddu am na solo lool mbokk taalibe yi ñu ngi toll kër maam Cheikh Ibrahima Fall waaye bi nu fi yegsee dañoo dégg junjum yi ñuy riir. Baara Ngom. waaw danoo yëg ci kër Cheikh Ibrahima Fall. waaw dégg junjum yi di riir. waaw di wax ni miim réew. Mm. Bamba ku moom. waaw réew mi Bambay ki ko moom. waaw wax nga dëgg Baara Ngom loo wax. waaw wax nga dëgg Mourtala fii mooy kër maam Cheikh Rafal Babul Mouridina. Mm-hmm. lamp borom yoon wi may sa bigge Kumba Fall. Mm-hmm. fii nag ah bu ñu fi accès ah, di sant Serigne Touba mi benn fanu safar bi di ko dox. Mm-hmm. bu ñëwee ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall nag ah dama ne def nañ li ñu war a def gileem li may wax ne gileem duru sa dellu gànnaar. gànnaar loolu nag mooy nekk lii nga tey nga xam ne moom lañ jaar kër maam Cheikh Rafal Babul Mouridine penc mi hmm. ah maam Cheikh Rafal sanc ko bi fi sëñ Touba ñëwee xaadima rasul waaye nekk fi nag ak waa këram yu baax yi wax naa la tey ji njabootu maam Cheikh Rafal yëpp génn nañu hmm. njaboot gi génn tey ji waa kër Cheikh Serif Assane Fall génn nañu di ñu teeru waa kër Serigne Abdoulaye Fall Ndar génn nañu di ñu teeru hmm. ñëw na fi kon daal Baye Talla njaareem daal ñu ngi sant bu baax lii ñu njaare lii lii ñu sëñ Bamba Xaadimu Rasul defal sëñ Bamba daa ñëwoon dëkk ak ñun daal di wàññeeku ba mu demee Touba tamit tey ku ne xam ne dëkkaat naag ak ñun kon daal ñu ngi sant Serigne Touba baax Baye Talla ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf jërëjëf jërëjëf ربنا لا